ngeen di gis muy dox di ñëw nag Cheikh Lo moo ñu ko indil ma bëgg ngeen tàccul ma ko tuuti parce que moom euh, star bu mag la mu ngi tudd Fixi alors Fixi accordéoniste la pianiste la il a travaillé avec kat yi gën a mag euh, en France bu ñu fàttalikoo daaw rek bokkoon ci ñu ñu nominé woon ci victoire de la musique victoire de la musique yooyu barki Dembo Ndiaye rek da lañ doon célébrer euh, seen anniversaire ou ñu ngi doon sargal tous les grands artistes francophones alors moom nag mu ñëw àndandoo ak Cheikh loo parce que Cheikh Lo il faut rappeler que album bi nga xamante ni yaa ngi koy génnee euh, fileeg le 25 mars album la euh, boo àndandoo ak dëkk yu bëri. Brésil déjà sa dëkk la parce que yàgg nga liggéey ak ñoom et que moom itam mu ngi jógee France ak yeneen i artistes yoo xamante ni euh, tànn nga leen alors balaa album bi di génn da génne IP wala EP alors. bokkul ak single d'habitude single mooy benn woy boo gisee léegi artistes yi xewal li ñu tuddee EP wala EP dañuy jël lu toll ci ñett ba ñeenti woy ñu def ko euh, ci euh, benn CD donc ba tey du bokk ak album donc loolu mooy différence entre euh, single ak EP et que EP léegi la ñu xewal donc Cheikh Lo defe naa album bi li nga ci liggéey bu ñu ko déggee kontaan parce que y a même beneen version bu lu tax donc on parle de l'album uh ah, -huh. Ah. Mhm. ok album bi déjà ñu koy tuddee euh, balballu mhm. euh, yan titre moo nekk foofu déjà waaw déjà am na dëgg gi am na doyal nañu am na balballu mooy titre éponyme bu album bi je pense qu'on a même le titre euh, mën nañu ko dégluwaale en même temps en sous impression parce que moi ce que j'ai écouté ça m'a plu je me rappelle hier nuit euh, muy euh, balballu bi ak dëgg gi plutôt dëgg gi dëgg gi maa ngi koy déglu démb ak sama benn xali xarit bu tudd Seliwan on a tellement apprécié qu'on s'est dit ce serait quand même bien ñu may leen ngeen découvrir way bi est-ce que toog mën nga ñu ko yokkal tuuti ñu déglu ko parce que actuellement Cheikh Lo li muy pare est-ce que est-ce que yéen a ngi déglu euh, mélange bi entre accordéon guitare sonorité brésilienne ba tey mu jox la valse joxe itam tuuti groove Sénégal parce que boo ko dégloo mën nga ko xaw a feccu tuuti comme euh, mbalax euh, joxe aussi groove Mali parsage bi muy joué aussi dina am na tuuti oriental d'accord et tu sens un peu de blues aussi ci avoir fi muy joué quel eh quel mélange ah ñun ñu ko déglu déjà ñu ngi ciy fecc mais pourquoi ce soir ah Fixi un grand artiste qui nous a rejoint merci d'être là alors euh, euh, euh, parle-nous de ce de ce travail euh, avec euh, avec euh, avec Cheikh Lo ah ben Cheikh on se connaît depuis longtemps parce qu'on s'est croisé en Angleterre au Barbican dans une grande salle on avait fait un concert parce que moi je travaillais avec Tony Allen uh -huh. qui est un grand batteur du Nigeria et Cheikh était avec nous ce jour-là donc on s'était croisé apprécié Et donc il m'a fait le plaisir de m'inviter sur son, sur son sur album. Son album. Voilà. Donc j'ai mis ma petite, euh, ma petite magie, ma petite touche. Voilà. cher, je pense que dinga ñu nettali tu nous racontes un peu l'histoire de cette production l'histoire de cet album naka euh, projet album bi juddoo parce que 2010 euh, nga euh, def album si je ne me trompe. Uh-huh. boobu nag ba tey yaa ngi nekk à cheval entre Sénégal ak bitim réew. Ah. scène yu mag yëpp yaa ngi fay tëgg. preuve baa ngi nii ak ki nga xam ni artiste bu la Brésil yeneen dëkk yi naka la projet album bi juddoo Cheikh. Euh, depuis 2013. Euh, mhm. lañ commencé euh, réaliser maquette bi fii. Mhm. donc en 2014 bi. Mhm. mois de juin ci lañ dem def enregistrement yi en Suède. donc toute la grosse partie. ak groupe bi ak évidemment quelques invités. yi doon def vent. Euh, ak un bassiste suédois aussi un mhm. pianiste mhm. ak groupe bi yëpp mhm. ñu enregistré foofu pare ñibbisi nga ñu invité woon ci night show bi dëgg la après léegi quatre mois après octobre ma demaat Paris pour def ay additionnel euh, mën a rencontré les Flavia la brésilienne la mu def ay prise dugal voix yi d'accord euh, ak Oumou Sangaré Euh, donc xam nga ci laay mu ngi def yenn additionnel yenn voix yi ma waroon dolli foofu. yenn kii wu batterie voilà. pourquoi option boobu léegi wax naa ko sànq parce que euh, ce dernier album euh, Sénégal Brésil ça a fait le tour du monde ngay génnewaat album boolewaat ci ñeneen ñoo xamee ni duñu ay sénégalais ah Oumou Sangaré. Mm. Fiximi brésilienne bi nga xamante ni actuellement mu ngi ñëw Sénégal pour ngeen présenter album bi pourquoi ce choix d'ouverture. parce que xam nga musique moom. plus plus qu'on s'ouvre mieux c'est. d'accord. plus dañuy gën a yeneen nit. voilà waaw ah, parce que xam nga comme adduna bi dafa yaatu. Mhm. couleur yi bari lool te wute. Mhm. xalaat yi bari lool te wute. Mhm. yow léegi bu fekkente ne fexe nga ba am melting pot. Uh-huh. boo xamante ne tu peux toucher un peu partout. le public. mais mieux affaire bi daal mooy bañ a rester euh, enfermé dans ta coquille. dafa s'ouvrir. d'accord d'accord comme ni ndaw si kii nen bi moom day koy toj rek. da koy toj du ko yaatal. <laughs> sànq balaa ñuy wax ak euh, Fixi parce que je sais qu'actuellement il est en train de tout faire quand même pour mieux présenter ou montrer son euh, son travail d'artiste ou son ou son talent wala ses talents aux Sénégalais sànq euh, bi ñuy commencé yeewu leen bi euh, dañu laajte woon benn question boo xamante ni dañu bëgg nga tontu ko ñun ñëpp c'est une question euh, collective okay. alors la question c'était Rasta Cheikh Lo yi ñaata at la am joxe 40 ans bii su joxe cinquante ans. kii yaa joxe euh, vingt huit ans. waaw mais attends euh. kii joxe cinquante ans. <laughs> maanaam cent vingt trois ans la ah yéen it léegi léegi ndigal yaa cinquante ans ñoom ñu ne. Oh. un demi <laughs> c'est déjà. non man trente laa ah. yokk de. non man de <laughs> léegi dama bëgg nga wax ma. non euh, njañ yi. mook sama taaw. taaw bu jigéen ñoo maase. may kii daal wala. non non non Ndeylo. mi ngi ci comme yéen mi ngi ci rajo Fatick. waaw. <laughs> Euh, ngi sëy foofu. ok euh, amal na ma ñetti sët. macha am naa ñaar Mohamed. Uh-huh. ak benn Baye Lahat. donc kooku année bi muy juddu 84. j'ai eu juste. 84 ça ça fait quoi ça fait juste 31 ans. ren bi muy juddoo laa njañu. te mosoo ko dagg ah non non non mosoon naa dagg tuuti nag boobu maire bi moom moo doon sol ne ma sa sa fii laa gëj a gis ok mais normalement rasta yi ñaata euh. mètre lay mesurer kon ah non je sais pas je l'ai jamais mesuré est-ce que mën naa ko ñëw mesurer léegi non mais amul allez je mesure les amuloo centimètre amuloo centimètre. bàyyi ma bàyyi ma am sama loxo centimètre la bàyyi ma mesurer. non attends xam mètre fan la. ah mètre fan mètre fii la man normalement mètre fii la non mètre fii la. fii ak nii Pape Cheikh ba fii voilà. waaye ñu seen loxo ba ay waay di nga tas coiffure jàmbur. amul problème non Pape est-ce que du caat. jëlal bi si suuf. voilà xaaral ko rek. <laughs> manqué na mètre benn rasta Cheikh Lo. un mètre. <laughs> et puis nous on adore le style. Euh, euh, style bi nga xamante ni moom nga adopté depuis ñu découvrir la euh, defe naa moom nga mos et puis depuis lii boo ko dégloo sa xel dafa la war a yóbbu ne la Thiass depuis Nella la d'accord qu'on avait réalisé ici ici nit ki da ngay dugg ci benn affaire uh-huh. xam ne lii sa wéy la mu nekk sa cachet uh-huh. nga téye ko foofu waaw waaw waaw donc style bi musul changé. musul changé. Uh-huh, album bu mu ci mënta doon. certes dinaa def ay yeneen changement ki mais am na ci Euh, benn touche boo xamante ni chaque fois naa arrangé wu ba andi ko rek. xam ne boo booy booy dégg balaa sax muy kii nga naan ah, kii Cheikh la war a loolu aussi dafa am solo. dañu xàmmee sa loxo en fait. voilà voilà alors Fixi euh, depuis très longtemps vous travaillez avec des artistes africains. Euh, avec Cheikh Lo vous vous êtes rencontrés et là l'album euh, euh, euh sortira prochainement. Est-ce facile de travailler avec des artistes africains? <laughs> Ah, faut avoir le, le, le feeling, il faut avoir l'ouverture aussi, comme dit Chèque, il faut sortir de sa coquille, c'est pareil pour, pour nous, pour tout le monde. D'accord, c'est pas la première fois que vous travaillez avec des, artistes, des artistes africains, alors pourquoi ce choix d'aller à la rencontre de ces artistes-là Je pense que c'est le, le, hasard aussi de la vie, et l'envie de, de, rencontrer d'autres cultures et de trouver d'autres rythmes, d'autres couleurs musicales. Moi, il se trouve que quand j'avais 17 ans, je suis venu au Sénégal, par exemple, et, ça m'a beaucoup marqué dans ma vie. Euh, mm -hmm. Je suis allé au, à Marloche, c'est un petit village aussi une saloum. Mm -hmm. Et euh, j'ai appris le, la musique sénégalaise, les rythmes, etc. Le rumti, c'était le rythme euh, qu'il y avait là-bas. Mm -hmm. Et du coup, je pense que c'est rentré dans, mes, dans mon sang, et dans, ma, dans ma tête, dans mes, dans mes vibrations. Dans les veines Voilà, dans mes veines. <laughs> Et, euh, je, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je me sens bien avec Cherlo et j'ai envie de mélanger, d'apporter mon, ma, ma culture ma musique et de la mélanger avec euh, la sienne. voilà alors euh, le génn mais gis naa ni la plupart des artistes yu ci bokk yu ci liggéey entre autres Fixi ak brésilienne ñoom ñëpp dañu ñëw Sénégal lan nga prévoir ak ñoom. Euh, déjà c'est pour euh, lancement album bi. Mhm. ça va se le samedi euh, 21 bi. samedi 21 bi ah gannaaw waati waati Bon, je ne crois pas tellement trop que, que Oumou Sangaré par rapport à son programme. Mhm. Peut-être Mounouniou. Mm -hmm. Mais si nous sorti à, à Paris, euh, je crois que c'est plutôt mois de juin. Hein. Mm Quel mois juin il vérifie si Parce qu'album le 23 mars 2015, euh, l'aurait Non, non c'est mois de juin. D'accord, d'accord, d'accord. Pour tout le reste de, de la, de, des autres Les morceaux, autres des chansons inédites, dañ koy génnee euh, mois de juin ça veut bu boobaa on va s'arranger à Paris foofu nga xamante ne ñii ngi nekk Suède c'est à côté quoi ñii nekk Paris kii bon pour essayer de rassembler mm-hmm. tous ces gens qui ont participé qui, qui contribué mm-hmm. voilà pour gën a joxe sonorité bi d'accord mais dans un premier temps pour ñu ñu bëgg am avant-goût album bi ak EP bi ngeen génnee samedi bi euh, bu ñu ñëwee Just For You di ngeen jouer yëpp euh, non non dinañ jouer déjà morceau yi ñu teg fii waaw ak euh, am na ci beneen morceau bu xam naa moom mooy seen genre comme ay genre lu tax yooyu. boobu mu ngi tudd gëmuma ko. gëmuma ko euh, d'accord gëmuma ko boobu nag. dafa war a génn ci album bi mais waruñu ko woon joué fii. mais comme affaire bi ay balbalu yenn genre afro yi. Uh-huh. c'est bien c'est écoutant mais xam naa ne am na ay morceaux xam ne mooy gën a yëngal sénégalais yi tuuti. Euh, ma defal gars yi surprise ni morceau boobu quand même uh-huh. on va le jouer. Uh-huh. Euh, le samedi on va jouer ce morceau quoi. voilà yeneen yëpp ñu bàyyi ba sortie bi. super alors di nga ñu mosal beneen titre ak sa guitare. fixi ak accordéon parce qu'on a très envie quand même dundu li nga xamante ni Cheikh Lo mu ñu koy proposer ñi bëgg ay spectacle am à chaque fois ñu dem fi muy jouer dañuy kontaan xam ngeen ni ma leen di wax e loolu la ñuy may en attendant euh, li mu tuddee balballu di génn euh, Cheikh Ndigal Lo en attendant sa kër noo ko décorer parce que suñu kër ay fauteuils yu ngand lañ fa def parce qu'on va parler de déco léegi nii sa kër defe naa affaire route ba gën a defee euh, déco bi non non déco bu xam nga ça ci fu nekk euh, booy duggee ci jardin bi ay genre nu mu tëddee rotin yi kii yooyu yoonu kii nu mu tëddee bi ko tànn am mm-hmm. ci jardin bi moom nga sànni ci jardin bi voilà ok ok bon salon bi normal comme comme salon yëpp salon yëpp quoi normal quoi d'accord